kon gis nga ayaat yooyu yëpp ma mbëmbëstalal la yàlla ne yéen da ngeen a bëgg féetale seen bopp doom yu góor yi ngeen bëgg féetale ma doomu jigéen yi ngeen bañ li ngeen bëggut ngeen bëggal ma ko li ngeen bëgg ngeen bëggal ko seen bopp afa asfaakum rabbukum bil baniina wattaxasa min al malaikati inaasan ah innakum la taquluuna qawlan wax nga wax ju alquran ji nu ne waxee naa ko ko ci ay farañ fànce ci tëkku ci ay dëhël ci ay bégle ci ay waaraate jublu ca lu naab seen xol yi ngeen mën a gëm ndax ngeen texe waaye yëg naa ne dollihul leen lu dul ak foñ wa laqad sarrafna fi hadha alquran li yadhakkaru wa ma yasidum illa nufuran yàlla nag na su fekkoon ne yeneen yàlla fi ne ni ngeen ko waxee te ni ngeen ko waxee demeewut ko yéen yàlla rek moo fi ne muy yàlla rabbul izzati wal jabarut ah qul law kaana fiihima alihatun illallah la la fasadata waaye bu fi yaari ñaari yàlla nekkoon kenn ko ku dee taa moromam ma ndax kii day taxoon damay taw kenn ko tawuñu damay tàng mu ne ko damay sedd damay joxe kii ko damay xeñe du ñàkk ñoom ñaar ñu mujj xuloo kenn ku dal ci sa kaw morom comme loolu mostaxam ci mantiq lu su ci ci maanaam ci dafay tekki ne kon yàlla rek a tax mu ne nag law kaana maahu alihatun kama yaquluuna idan labtaxu ila zil arshi sabilan waaye subhanahu wa taala amma yaquluun kabiran koo xamee na nii lépp koy sàbbaal ci asamaan yi ci suuf yi ak lépp lu dëkkee moom xam na ki ñoo xam ne settiwuñ ca ya dara boo demee nag xam na ci ñenn ñu ko setti Ibnu Abbas nee na xamul lenn luy luy dund lu dul ma ngay sàbbaal luy dund la ca namm wa in min shay'in hayyin illaa yusabbihu boobaa nag xayawaan yëpp dañuy sàbbaal yàlla nabaat yëpp dañu sàbbaal yàlla kenn génnut ca su ko defee tamit nag euh, garab yi dañu sàbbaal yàlla waaye mu ne njoowaan nag jamaat la doj nja euh, jamaat la lépp luy jamaat mënta sàbbalti yàlla garab bu xasee dee ñi lakk ko wala mu dee noona sàbbaltut yàlla loolu Ibnu Abbas gëm mu ne suuf dana sàbbal yàlla fekk tooyut bu xasee tooy sàbbalatut yàlla kon loolu la ko déggee moom xobi garab yi bu nekké ci kaw garab sabali ngay sàbbaal yalla bu xasse dogu daanu rek sàbbaal tud yalla li la ibnu abbas wax su ko defé kon nak yéré dana sàbbaal yalla fé mi ngi bes waye bu xasse yenti sàbbaal tud yalla njanaaw yi yent yent yi ak wuxuus yi ñooñu ñëpp maanaam koo ca dégg muy di sab ma ngay sàbbaal yalla bu noppé sàbbaal tud yalla kon ñom ibnu abbas non la ko firé ca ndox yaak la ca haju moo taxoon yonent bi xeer yam yëkkati woon teg ko ci loxoom keroog euh, xare euh, badar ñu sàbbaal yàlla mu teg ko ci loxo aboubacar mu sàbbaal yàlla mu sànni leen ko ne shahatil wujuh ñu ne nag ñu fi nekk rek di la jëw waaye maa ngi lay xamal ne képp kuy jàng alquran kenn mënulu la dara boo jàngee alquran daal lépp lu la hut si yàlla dox sa digganteeg moom ndax comme yonentoo wax ne waaye alquran mi le su ko bindoon ci aw der sànni ko ci safara du lakk waaye waaye kon kay bu nekkee ci jëmmi doomu aadama yàlla koy wattu ba du lakk du lakk ci ci tàngooroo àdduna du lakk ëllëg ci tàngooroo àllaaxira ku ko teral sax du lakk su ko defee nag alquran moomu man na lépp nañ ko gëm rek bu ñu kenn gëmul nañ ko gëm ñun bu ñu ko gëmee lépp gëm ñu yàlla nag kon nee na kuy jàng alquran yàlla mooy dox sa digganteeg lépp loo ragal fa ida qara'tu ida qara'ta jaal naa baynaka wa bayna lazina laa yu'minuuna bil aaxirati xijaaban mastuuran kenn mënu ci dara kenn du la mën a gis gisoo yonent ma doon jàngal Alquran ba Ummu Jamil jëlee dojam wa fekk ko fee ne koy sànni gisu ko keroog ba tabat yadaa abii lahab wàccee gisu ko yàlla dox diggante mu ak moom wax waxam yu waxam yu ñaaw yooya mujjut fenn su ko defee kon nag ña ngay diyaale rek di la jëw waaye nahnu a'lamu bimaa na la ñuy diyaale mooy da ngeen topp waa ji in tattabi'una illa rajulan illa rajulan mashuran ñu taxawati naan ndax ñun buñ deexee danañ dekk yéen a dof yàlla ne waaw bu leen nekkati nit nekk leen doj bu ngeen nekkoon doj ma dekki leen bu ngeen nekkoon weñ ma dekki leen su ngeen nekkoon lu gën a rëy ci mbindeef yi ñu ne mooy asamaan ma dekki leen boo demee ci tafsiru Qaasim ne bu ngeen nekkoon dee sax ndax li gën a rëy ci nit mu koy xalaat gën koo jaaxal mooy dee même bu ngeen nekkoon dee ma dekki leen kon <laughs> nga xam ne kon yàlla rek a yàlla yàlla ne waxal sama jaam yi jullit ñi ñuy wax ak xéeféer wax yu rafet jullit ñi nañuy wax ak ñoom wax yu rafet saytaane nag mooy yàq seen diggante ndax moom nag naka jekk dafa noonoo doomu aadama inna haada aduwun laka wali zawjika man yàlla tamit gënal naa yonantu yi ndax xam na ci ñoo xam ne la ma leen defal defaluma ko ñeneen ña kenn ku nekk la nga xam ak la sa moroom xam nekkut benn li Muusa am yeneen yonantu ya amuñu ko mooy kalimullahi li ibrahima ay am yeneen ñi ko mooy xalilullahi la yonantu bi xam kenn xamu ko nag mooy habibullahi sallallahu alayhi wasallam. sallam te kenn ku ne da nga gënal sa xarit sa soppe ci sa xarit sa sa soppe mo la gënal sa xarit su ko defee kon nag ayat yaa ngoog topp di ko jaamu te moom yàlla lay jaamu ngeen topp usiru di ko jaamu te moom yàlla lay jaamu perte ngeen dem leen bàyyi leen dem jaamu ji yàlla yàlla tofal ca ne wa in min qaryatin amul benn ñooñ dëkk illaa nahnu lu ñun yàlla muhlikuha way xalak lañ leen qabla yawmil qiyaamati njëkk a xalaqira njëkk yawmil qiyaama mooy danaa leen rey dëkk yëpp laay rey ràppal ko aw muazibuha wala ma mbugal leen xazaaban mbugal sadidan mu tar ci rey njëkk taxaw ak yawmal qiyaam kaana nekk na zaalika loolu fil kitaabi ci lawhul mahfuus masturan di luñ bind loolu la fi yàlla dogal te loolu def na ko wa ma manaana terewut ñu ñooy wax an nursila ñi ñuy hebal bil ayaati ci kaawteef yàllaay wax ne waaw li ngeen bëgg di ko sàkku ci yonantu bi ne naa ko ko defal ndax moromam yonantu yi xamoon na ko naa leen andil ngelaw bu leen yóbbu bu ngeen tukki loolu ngeen bëgg na ma ko defalee yonantu yàlla Suleymaan naa leen nooyalal doj yi raase ko na ko defalee woon yonantu yàlla Daawuda loolu ngeen wax man naa ko waaye nag wa maa manaanaa terewuñ ñu an nursila ñuy hebal bil aayati ci kaw téefi ni ngeen ko sàkkoo illa an kasaba lu dul ba weddi bi bihaa ca moom awalu ñu njëkk ña damay ragal bu ma ko wàccee ngeen weddi ko naka ñu njëkk ña bañ ko sàkkoo nañ ko weddee woon te kon faw ma xalag leen te dama leen a yërëm ngir yonantu bi bëgguma leen a xalag na ma xalag yoon xeet ya jiitu woon wa tey naa joxoon nañ samuuda li te samuuda ya naa naaqata gëlëm ga mu nekkoon di kaawteef mu bisratan bu leer naññi foofa la moo ñu weddi mooy ñu tooñ bi haa moom ca weddi ko wa maa nursulu hebaluñ bil aayati ci kaawteef yi illaa fan lu dul ak loo ci jaam yi bëgg ngeen gëm waaye nag wa fàttalikul id qul naa ba ñu waxee lakka ñeex la ne in rabbaka naka borom sax ahaata peeg na binaa siki ñi ci xam-xamam xamul dara lu ko nëbbu wa maa jaxal naa defuñu ar ruya gis ga alati gi nga xam ne aray naaka wan nañ lañ ko wan nañ la ko ca laytu isra ga nga gis sa borom defuñ ko ak kaawteef yu rëy ñu fa gis illaa fi na tal lu muy ak sànku li naa si ñeel nit ñi dana nekk ak sànku te ci ñoom nekk tamit ak xéewal ci ñi gëm mu dol leen gëm ñee mu dol leen ak sànkute wa sajarata defuñu garab ga almaluna ta gën a guñ rëbb fi maanaam fil quran ci alquran muy saqoom ñu taxaw naan waaye garab nu muy mën a saxee ci safara wuy lakk te lakkut ko yàlla ne ñun ko def ngir sànq leen rek wa nuxawwifuhum ñu ragal loo leen fa maa yus nu dolliwul leen illa tuxyaana du ak sànkute wa fàttalikul eh, is qul naa ba ñu waxee li malaakat ñeel malaaka yi ne usjudoo sujootal leen li aadama fa sajadoo sujoot nañ illaa iblisa isnaahu munqati' la moom de wa qaala wax na ne asjud ndax dama sujootal li man xalaqta ñeel koo xam ne da nga koo bind tii nan ci ban ban nga ko bind qaala sama borom ne ko araytaka soloma haada kii la si mooy ki nga xam ne ka waaw moom iblis ay wax ne ko araytaka soloma haza kii la si mooy ki nga xam ne karamta da ngaa teral mooy da ngaa gënal xale ci man ne naa ko sujootal ah la in axartani su fekkee wallahi da ma maa yéexee ilaa yawmil qiyaamati ma toog fi ba bis penci déewuma la axtani kan na wallahi danaa faagaagal suriyatahu njabootam nga ci sànq leen réeral leen ah illa qallan lu lu ñu néew dafa bañ a fen su ko defee sama borom na ko ishab demal nekk nga kuñ muñal ba ca wala bufta gu njëkk ga fa man tabixaka képp ku la topp minum ca ñoom fa ina jahannama naka safara jasaawukum mooy seen fay yow jë ak ñoom jasaan mu nekk ak fay mawfuuran nekk guñ lëwal mooy nekk maanaam gu lëw rek mooy gu mat sëkk wastafsis nanga nga xooyafal mani sa taata lépp loo man mi minum ca ñoom bi ka sa kaddu gile di leen woo ci ay way ak ci ay riiti ci ay bala mbata ak ci làmb ji di leen woo ci ci ci ndaga yeeg ya ci aju defal wa ajlib ne maanaam na nga bijjal ma àllim ci ñoom bi xaylika ci sa fas wi war ak sa liru gi mooy hôtel bu ñu xeboo war seen Mercedes yi seen avion yi di ñëw di fekkee ji ay concert wala seen sareet ya wala seen jakartaaya luñ mën a war nañ ko war huusi la ña mënta war tay dox nañ la huusi ci ak mooy yàlla yaa xam wa saarihum na nga bokkaale ñoom fil aw fil amwaali ci xalal yu xaraam yi di lañ ko xiirtal ne leen fexe leen ba am rek ñàkk rek a bon bu geen ko xamee ci riba baax na buy fëkk baax na buy tappale baax na buy sàcc baax na wala awlaad yi ak doomu njaalo yi na leen ci xiirtal na bëri yaa xam wa'iduhum na nga leen dëhal waaye li mu wér te wóor wa maa ya'iduhum du dëhal leen saytaanu saytaane illaa lu dul neen maa ngi lay xamal na yow iblis ina ibaad yi naka sama jaam yi lay sa làkk déet di la ñaal alayhim ci ñoom sultaanun benn kartan wa kafaa doy na bi rabbika sa borom wakiilan ci aji wattu moo leen ni wattu de mënuloo leen dara de dara la ci mënut kon gis nga ko iblis a ngoog ak fi yàlla jaar ak moom yàlla dafa wax ne moom peeg na mindee fam yëpp ci xam-xamam ndax wa nahnu aqrabu ila min hablil warid ñom nak ñu nekk fi naan garab nu muy mëna saxé ci safar ta lakkut ko muy saxum ndigal bañ yegg ci lañ koy xam ñu nekk fi naan ndax buñ danañ jekki yalla ne bu ngeen nekkon di asaman sama dekki leen ñu nekk fi timit top loola sanko ni iblis sanko ba ko yalla digalalee mu sujjoot muy xeeb tu ko defee aadama naan hadha allazi karamta alayya ki nga gënal ci man dana boo ma yéexee ba yowmal qiyaam danaa faagaagal loolu yàlla nangul na ko ko ndax ku liggéey yàlla fay la yàlla fay na ko loola yéexee gi yàlla fay na ko may ko pouvoir mu nam ma texee di yëpp dana leen faagaagal ñii mu dugal leen ci réseau làmb ji ñu nekk ca duñ julli tusubaar takkusaan timis géexe di commenter rek ñii mu dugal leen ci réseau football bi ñii mu dugal leen ci réseau fecc mi ñii mu dugal leen ci réseau karta gi ñii mu dugal leen ci réseau njaalo bi ñii mu dugal leen ci réseau maanaam ah, jëw ak tappale ak wax ju bon ak yàqante ay der yàlla ne yaa xam yooyu yëpp ma ngoog boo ko koo mën a xooxooxal kuy war xuy si la moo xam kuy dox xuy si la moo xam waaye boo lëggee safara mooy sarandi ak ñoom yaa xam mu jeex tàkk mais ñi ma tànnal sama bopp def idaafatu tasrif ñoom tus nga leen mënul yàlla nañ sa bokk inna ibaadi yàlla nañ bokk ci yaawu idaafa googu yàlla tofal ca ne eh, yàlla tofal rabbukum borom seen la mooy buur ba nga xam ne yuus ji dana mu màng làkkum ñaa leen afulka gaal yi fil baxri ci géej gi yuus ji dana mu dawal làkkum ñaa leen fulka gaal yi fil baxri ci géej gi li tabu takku ngir ngeen sàkku ci min fadlihi ci wërsëgam di ko doo di dugg ca gaal yi di commerce ji di ci dugal seeni bagaas bagage innahu naka moom borom bi kaana naka jekk rahiman ku bëri bi bikum ci yéen ba mu tàggatal leen géej gi ba ngeen bëggee tukki ci géej gi. te wa iza masakum bu leen jotee adduru lor mooy ak tat ngelaw lu bëri fil bahri ci géej gi ngeen ragal lab dalla sànku man tad'una ñi nga xam ne yéen a leen di jaamu ci ay yàlla kenn du fa des illaa ilaahu lu dul yàlla rek moo fay des falammaa najaakum bu leen musalee ci lab nag ilal bari ba ngeen hegg ca jéeri ja aratum ngeen dudd dëddu ngeen du mooy si wéetal yàlla aratum ngeen du mooy walis wéetal yàlla wa kaana nekk na insaanu xeet doomu aadama te mooy xéeféer kafuuran di weddi haa kon yàlla yi afa amintum ndax da ngeen a hóolu an yax si fa ba labal bikum ci yéen jaani ba bari fa wàll jéeri ja bu neexoon yàlla mu xar suuf si ngeen ngeen lab ca mu ngi xew ci réew yu bëri ci Europe ak ci Asie aw yursila wala mu hebal aleykum ci yéen xaasiban ngelaw loo xamee dafay riddi di naawal jembara yi comme nam ko defee woon ci nit luut ña so ma laa tëgg topp du ngeen am lakkum ñeexal leen wakkilan aji wattu leen afa amintum ndax da ngeen a hóolu an yuidu ko mu delloo leen fii ca biir géej ga taaratan yoon ngeen lim di tukki acc géej ga fa yursilu mu hebal aleykum ci yeen qasifan ngalaw lay ajiridi wala ajiri min rihi ca ngalaw la su ko defee mu damu gaal ya fa yuhriqukum saw labal len, bima kafartum ci saw bu seen weddi fa mala ngeen am lakum ñaxal leen xalay naa ki ñun tabihan aji aji dimbele di ci mom kon nak bu ngeen yebo top yalla mo gën ragal yalla gën ragal lu yalla bind bu len ragal geej ragal len yalla mi mom geej bu len ragal safara ragal len yalla mi mom safara fu ngeen mën a nekk bu leen yàlla soxlaa ngeen dee bu ngeen foog ne nekk ci géej taxut a dee génn ci géej gi nekk ci jéeri ji terewut a dee su ma neexoon ma hebal ay doj muy message su doj mu ray leen comme na ray nitu luut ña su ma neexoon ma xotti suuf si ngeen dugg ci biir dee su ma ngeen dugg ci géej gi ma musal leen ngeen ma ray leen kon nag ragal leen yàlla waaye bu leen ragal fi yi nga xam ne raglu te ku ragal yàlla lu ragloo ti ragal la ku ñeme yàlla lu ragloo ti ñeme la wa haythu ma taqaf ilahaka al ahad yaqafka min khawfika kullu al ahad la serigne touba waxon qadimu rasul su ko defee wala xadd karamna wala isa sa dëgg-dëgg teral nañ wala xadd karamna wala isa sa dëgg-dëgg gënal nañ ba nii aadama doomu aadama yi maanaam ci xam-xam ak ci tudd ak ci xemoog bind ko defal ak ñi nekk ñu laab seen ak ñu waxamal naa wam xen nañ leen fil bari ci géej ci jéeri ji bañ bëggee tukki ci jéeri ji ma indi leen météro indi leen oto yi jakarta yi indil leen timit lépp luñ soxla lu mën a yóbbu nit ci jéer yi wal baxri ma tàggata leen géej gi ci ay gaal bañ ca bëggee tukki ñu bëgg dem jaww ji ma tàggata leen ay avion war a sax naam war sagal nañ leen mu ne baat ci yu teey la ñuy lekk lépp lu tey lu dagan la wa fadal naam gënal nañ leen alaakasan ci ñu bari man xalaq naa ci yoo xam ne bind nañ leen lu mel ni mala yi ak njanaaw yi taf di leen ak gënal dafa bari malaaka sax boo meree ni nga war a mel ci mbaax yaa gën malaaka ndax yaay xayrul bari ati soo xeesee nag meroo na jinne janax yi sax ñoo la gën ndax yaay sarul bari ati yow man na duma fàttalikul bis dana danañu xoo ko la unaasin bépp mbooloo bi imaamihim ci seen yonantu ba boo yowmal qiyaamee yonantu bu ne ma mbooloo mu ne maa ngi leen rappel ci seen turu yonantu ba fa man képp koo xam ne utee joxeef na ko kitaaboo téeréem ba bee minit ndey joram te mooy ñu texe ña fulaaka yooyu gaay yàqaroon danañ jàng kitaabum seen téere ba walaa yuxlamuuna deefut tooñ leen ba leen wàññil lu baax lu def mbaa ñi leen woo yokkal lu bon luñ deful fatilan lu toll xoltu maanaam saalu tàndarma lu toll noona duñ ko duñ ko ca wàññi mbaa ñu ko ca yokk wa man kaana ko nekk fii haadihi ci àdduna bile ama di aji gumba ci gis maanaam te xol la ci namu mooy gumba xol ba gëmut yàlla nanguwut ko fa huwa moom ama kuy gumba lay doon fil aaxirat ci àllaaxira waaye mut ci gumba gii gumba gii boo ko nekkee gëm yàlla muñ ko boo dee dem aljana waaye ku gumba ci xol bu yowmal qiyaama da nga gumba tamit ci xol ak ci gis wa addalu mooy ki gën a sànko sabilan tamit ci yoon wa in kaadoo la yaftinuunaka an illazi awxaynaa ilayka aaya la jooj yàlla ngi koy wax ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sababu nusool bi nag wax yu bëree bari yu wuute la ci boroom xam-xam yi wax su ko defee euh, boo demee jalaal lam ca wax wa in kaadu la yaftinunaka moom madinatu munawara la wacci ak la ci tafsirul qasin wax dafa wuute waaye daal ñoom dañoo bëggoon a laxasloo yonantu bi dañu ñew ci yonantu bi nako, sa morom yi yonantu yëpp saam lañ ne wa wa dañu bëgg nga déplacer bàyyi madinatu munawara dem sam, yalla ne bu lolu xamone ñoom bala ñoo yàgg ma leen ndax xamul benn xeet wuy génne seen ab yonent te dëkk loolu ba xalak naa leen firi moom moo gën a jege waaye naan dañ ne ko woon ñëwal ci suñu yàlla yi mu dem ba xitte foo bëgg koo def nangam ak nangam loolu yonentu xëpp na ko xëpp na ko kon wa in kaadoo xawoon na ñoom xéeféeri màkka yi wa in kaadoo xitte woon na ñoom yowooti madinatul war yi la yaftinuunaka di la laxasloo mooy di la wàcc la loo xam ne la si wes na nga xam ne aw xay naa wax yu ne lay ko jëm ci yow li taf ngir na nga duutal xan lay naa waral ñu xayrahu lu dul moom lu dul lu wuuteeg li ma la jox wa isan bu loolu xamoon de la taxasoo kon dañuy jàpp la xalilan ngay xarit ndax ñoom lañ ne fenn woo ca du la jàppee xarit walaw laa an sabat naaka su taxutoon nag liñ la dëgëral ki suñu wattu ci dëgg gi gii laqat ki taxawoon nga tarkaru du jeng illeen jëm ci ñoom shay an lëf xalilan gu néew new néew mooy jeng gu tuutee tuuti ci ànd ak ñoom isan bu loolu xamoon sa jeng gi li kon la asak naaka danañu mosal la defal mamaati fulak mbugalam dee bu ko defee ñaari mbu mbugal lañ la koy defal soo ma laa tagidu topp maanaam doo fekk maanaam nasiran ak i dimbale ka ñeel xale naa ki ñun kenn du la mën a dimbale bu ko defee nag wa in kaadoo xawoon nañ la yastafizunaka di la loo minal ardi ci suuf sii di suuf madinatu munawara pour nga génn li yoxu juuka ngir nañu génn la min haa ca dëkk ba wa isan su fekkoon ne génnoon nga la laayal ba sunu duñ sax xalfaka sa gannaaw illa qalla lu néew ma lay neexal ak de loolu tamit sunu tam man mooy yoonu ña nga xam ne xad arsal naa nañ xabla ka ñu la jiitu ku musa a seen yi ma xalak la min usna ci suñu yi ku leen musa a ma xalak leen su ma laa tëjudu tamit wala tagi do fek lu sunu naa ñal suñu yoon wi ak wattee ak mi nga taxawal salata julli li du loki shamsi gannaaw manam jengu jant bi manam tamit duggu ak takusan, ila xasaqi layli jembe ba lëndëm muti guddi mu tey timis ak gehe duggu wa Quran al fajri ak manam qur'an al fajri muy manam julek suba muy al Quran fajar ina Quran fajri naka qur'an al Quran fajar Kan nek na mashuudan di luñ tey malaaka yi ci lay malaaka yi nga xam ne ñoo won wattu ci la ñuy yéeg ñu leen war remplacer ñew moo ñaar yoon lañ koy sédé yalla mom mo gëna xam lepp waye day laaj lu ngeen bayyi sama jaam yi ñu dañ leena bayyi ñuy julli lu ngeen leen fekk lu ngeen leen fekk julli yàlla ne wa min layli ci guddi fa tahajjat na nga naafila bi ci guddi gi nga naafila alquran naafila muy ndollal làkka ñaal la su ko defee xasa an yabxasaka amaan na ba taxawal ko borom sa maqaaman maqaama mahmudan ba de buñ sant boo xam ne woy njëkk ak woy mujj yëpp dañ ko sant mooy maqaamat shafaatul kubra kooku la ko yàlla defal waqul waxal rabbi yow sama borom adxil ni yàlla nga ma tàbbal madina ma dëxala sidqin tàbbi waayu dëgg mooy buñ gërëm wa axrij ni yàlla nga ma génnee màkka muxrija sidqin génn waayu dëgg du ma gestooti maanaam jëm fa bëggaloo ma fa nga bëgg rek wajaxal yàlla nga def lii ñaxal ma dañ koy aji dimbale woo xam te dama dimbale waqul waxal ne jaa dikk na alxaqu dëgg te mooy lislaam wasaaqa seena albaatlu neen nel baat la naka neen kaana nekk na saxe saxuqan maanaam di di seeyaakoon bu dëgg ñëwee rek neen dem wala na silo danañu wàccee minel quran laala moom alquran maa la nga xam ne foofu moom shifaahun saafal lay doon wa rahmatun ak yërmande lil mu'minin ñeel way gëm ñi wala yis du dolli zaalimiina way tooñi illa xasaaran lu dul ak perte wa ida anam naa su fekkee xewee nañ xalal insaani ci xéeféer bi arada mu dëddu wa naa mu sori bi jaanibi ci wàllam leem ko wa naa mu leem bi jaanibi ci wàllam di rëylu wa ida masawu bu ko jotee charu feebar charu ak ñàkk kaana nekk na ya usan di naagu xaakoon ci yërmandi yàlla qul waxal ne kullun mbooleem kun ñun ak ñun ak yéen ñëpp kullun kumu ci ñun baa ci yéen yaamul dana mu jëf ala shakilatihi ca yoonam wa fa rabbukum boroom seen alamu xam na man ci koo xam ne woo moom ëhda moo gën a gindeeku sabilan ci yoon yàlla xam na ko de kon gis nga ayaat yooyu yàllaa ngi digal yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko gaa yi bëggoon nañ laa tarxiisal maa la wattu gaa yi bëggoon nañ laa génnee dëkk bi madina nga dem saam boo fa demoon ñoom ñaxal ko digal naa la del taxawal juróomi julli yëpp rawatina julleeg fajar moo tax inna quraanal fajri ji ci a war a jàppee ne mooy salaatul wusta moo gën a màgg ci julli yi ndax ni ko wasafee nii malaaka yi dañ ko seede ñaari yoon ñi monte si ak ñañ fa fekkoon kenn ku nekk bu demee sama borom laaj la nga ne fekk naa leen ñu julli bàyyi naa leen ñu julli ñu seede ko ñaari yoon naa fi la guddi xam na doole. dafa nekk farata nag ci yonantu bi comme ni jullitu subaar tàkkusaan nekkee farata ci ñun moom nag naafila guddeem benn guddi gi lépp mbaa genn wàll ga wala mu xaaj ko ñaari xaajee wala ñetteelu xaaj ba yaa ayyuhal muzammilu qumil layla illa qalilan nisfahu aw unqus minhu qalilan ma ngi ca kanam danañ ca yegg yàlla ne ko nag naafila guddi ci ngay jëlee cër bu rëy rëy rëy muy maqaama mahmud kon tamit képp ku bëgg a nekk jullit boo xam cër ci yàlla faw ngay naafila guddi ki def farata yi ci la ñuy nekkee jullit waaye ci matal naafila yi ci la ñuy matee jullit ku bëgg a nekk jullit bu mat del la ku bëgg a nekk jullit del julli julli juróom yi kon julli juróom yi ci la ñu nekkee jullit julli naafila yi ci la ñuy matee jullit nekk nag baax na waaye mat tamit baax na yàlla nag wax yenoon bi ne ko booy dugg madinatu munawwara waxal wa a war a waxal moo ci a aaya ji foofu la wàcc moo tax dëkk ba dugg na fa mudxala sidqin mudxala mudxala sidqin ji am na dëkk ba neex lool ci moom ma fa am jàkka ju fa kenn jàmm fa la mujj fa lañ ko denc wa axrij ni muxraja sidqin jam waxoon ca màkka tamit am na gis nga ko kër ba mu ñëw di daane ci xiram la loolu la doon wax di jëm xiram yi ñi daanu wa qul jaa haqq wa sahaqa albaatilu inna albaatila kana sahuqan qur'an wa kenn ko safara la lepp de rek la ta safara waye wun nasiru min qur'an ma huwa shifaun wa rahmatun lil muminin loola moom ñëpp ci dëppoo aaye ji tegu ci mooy wa yasalunaka ani ruux yonent bi ko yàlla yónnee bees ca màkka muy xoote waa màkka weddi ko dañoo mujj ne ñun juum nañ ummi yi lañ mosuñoo wàcc ñun benn téere nañ def délégation yoon leen ba ne dafa am ku ñëw ci ñun ne yàllaa ko yónni luñ ñu wax ñu xam ko ñañ yónni leen bu ngeen demee laaj leen ko ñetti laaj bu tontoo yëpp du yonantu bu ca tontuwut benn du yonantu bu tontoo yëpp gan ba gën a néew yonantu la. laaj leen ko mbiram roox moo nekk nii ak mbiram asaabul kahf fi lañ ci yegg si ak mbiram sul ni ñu ñëw yonent bi dem leen ba suba fàttee wax incha allah yàlla magam lëndëm la ku ko dajul mu daj boppam mu ne nag ah wala taqulun li shay'in inni faa'ilun zalika gadan illaa incha allah su ko defee loola suñ maam sëriñ Abdul Aziz yàgg na ko nettali mu leer Sénégal yu bëri seen bopp yàlla na ko yàlla yokku leer. moo tax mu ne wa yasalunaka ñu laaj la ñoom yahudi ani ci ruux mi nga xam ne bu duggee ki jëmm rek mu dund qul wax leen ne arooxu roox min amri rabbi mi ngi tukkee sama mbiram borom amri yu la duwut xalq yu wa ma wutiitum joxeefut leen mi ngeen xel mi ci xam-xam ilaa qalil lu néew wala incha naa wala incha naa wallaay su fekkoon ne neex nañu la nazahabana danañu faagaagal danañu demee les na nga xam ne ay waxee naa wax yu nañ léegi yem ci ci alquran ñu effacé ko ci dënn yeeg ci téere yi dara du fi desati su ma laa tagidu topp doo naam wakiilan aji wattu xale naa ki ñun bii ca moom ah yaa rahmatan desal nañ ko nag ngir yërmande mbéy ko bàyyi sa borom ina fadla woon naka ngëneelam xaal kaana nekk kaana naka jekk kabiran lu màgg la alayka ci yow yonentu bi sallallahu alayhi wasallam qul wax leen ne li tamaxatu qul li tamaxati wala su fekkoon dajee woon na al insu xeeti nit ñëpp wal jin wa xeeti jinne yi xalaan yaatoo ñu indi misli hada quran ci kem xal quran ji ci fasaha ci balaaga laa yaatoon duñ indi bi misli ci kemam walaw kaan doon nekk na baadum leen ki ñoom fahiran di aji dimbale li baadin ñaan leen duñ ca man dara wala qad sarafna walaaye biral nañ li naa si ñeelal nit ñi fi haasa quran ci alquran ji min kulli masalin ci bépp melo woo xam ne dana tax ñi mën a gëm rek mi ngi ci waaye fa abaa bañ na akasaru naa si li gën a bëri ci xéeféeri màkka yi illaa kufuran lu dul ak weddi ca lañ nekk su ko defee nag ña ngay taxaw waqaaloo ña ngay wax yonent bi ne ko lan nu'mina du ñu gëm lan nu'mina du ñu dëggal lakka ñeexal la xataatu fajira ba ta nga balalee lanaa ñeexal ñu mi ne argi suuf si yan boo an ay sewnde ndax na am ay ay ay ay tool yi ñu mën cee bay aw takkoon wala nekk làkk ñeex la janatun tool mi naqali ci tàndarma bu rëy rëy waaye la bin ak resin fatu fajjira sama sos nga balal al anhaara sew nday xilaalaha ca diggante ya tafjiran ak baral aw tuskita wala nga rotal sama asamaan nga nga rotal aw dogit kama saantu comme ni nga ne maanaam alay naa ki ñun kisfan ak dogit ni ñu ni ñuy tëkkoo wàcceexal asamaan si ko defee nag aw taatee wala nga dikkee billaay ci yàlla malaakati malaaka yi xabilan mbir mi ñuy way janoo di la seede ne yow yonent bi yàlla nga aw yokkoon wala nekk lakka ñaala baytul néeg min suxrufin ci wurus aw tarqi wala nga yéeg fi samaay ci asamaan ci échelle wala nu'mina duñ dëggal sax li ruqi ka ñeel sa yéeg gi xataatu nasila ba ta nga wàccee xalay naa ki ñun kitaaban téere bu lay dëggal naqaroo boobu dañu jàng ko xoola ñeent yi ñu wax ko yàlla ne subhaana rabbi tudd na ma selal sama borom hal kunta ndax wax leen ne leen hal kuntu déet man illaa basaran lu dul may ndaw maanaam may may mindeef rasulan koo xam ne ndaw laa li lépp mënuma ko yàllaa ko man bu ma ko def loo ma def ko yàlla ne wa maa mën a terewut naa sa nit ñi an yuminu seen ak gëm is jaawam ba leen dikkalee alhudaa njub muy alquran alhudaa yonent yàlla muhammad ila an qaaloo lu dul seen ak wax di we di dekki ne abaasa ndax dafa yónni laahu yàlla basaran mindeef rasulan ndaw laa wax lu tax la taamu yónnee malaaka qul wax leen ne law kaana bu nekkoon fil ardi ci suuf malaaykatu ay malaaka yan suuna mbir moom ñoo xam ne danañu dox mut m in nii na mbir mi ñuy way dal li kon la nasal naa danañu wàccee xaaleen ci ñoom mais samaay ci malaaka rasulan muy ndaw bu fi ay malaaka nekkoon rek mu yónni malaaka comme nit ngeen nit laa yónni kafaa doy na ci yàlla shaydan ci aji seede bay sama diggante wa baynakum ak seen diggante ne man yonoon toob yàlla laa innahu naka moom yàlla kaana naka jekk xabiran ku dañ kumpa la bi xibaadi ci jaamam bi basiran ku xam la bi xibaadi ci jaamam bi wa man yahdi képp koo xam ne gindi na ko laahu yàlla fa huwa moom almuhtadi mooy aji gindeeku ja wa man yudlil képp ko ay xarit yu leen a jubal min doon wali si yàlla wa naxsuruhum te dañu pang leen yawmal qiyaamati ka bis penci ñuy dox xalaa wu jooyin seen cël maaya xom yan mbir mu ñuy way gumba wa bukuman mbir mu ñuy way muum wa sumam mbir mu ñuy way tax ma waam seen tàppwaay jahannam mooy safara ku la maa xabat saa yoo xam ne dal na sidnaahum ñu dolli leen saa yi nan safara saa yu demee bay fay rek ñu maanaam ñu xambaat ko saa saalika loolu gisaawu mooy seen fay bi àndoon saw bu naka ñoom kafaroo dañoo weddi baayet naa suñ kaawtee fi waqaaloo ña ngay wax di weddi dekki na isa mit a isa kunna ndax ndax ndax buñ mujjee isa man di yax waru faatan nekk yu fënax a isa a inna ndax ñun la mabuusuna ñuy dekkil lañ xalxan ci bind jëddeen gu bees lii la ñuy laaj yàlla ne awalam yaraw xanaa dañoo xamul ana laa naka yàlla la fii mooy buur bu nga xam ne xalaqa bind na samaawaat juróom-ñaari asamaan wala arda juróom-ñaari suuf te ñoo gën a màgg ki man lii qaadirun aji xattan la xalaa ni yaxluqa mu bind misluhum kem ñoom mbindeef yooyu ci ak tuuti yéen tuuti ñi di ay ñebbu ku bind lii kay bu le man mën na ko ngeen war koo gëm wa la def na lahum ñaa leen ajalan diirab dee ak dekk laa ray ba tet sikk di fii ji nekk fa abaa bañ na zaalimuuna way tooñña muy xéeféer ya illaa kufru ak weddi rek ci lañ nekk kon ñi dañu téxé hadi kenn mënu ci ñoom da su ko défé mu ne man mu ne man yalla buma ma neexoon li la xamal ak neew ci alquran ma effacé ko ci sa dënn bi effacé ko ci dënn yi effacé ko ci téré yi kenn du ko gisati waye yërem la ak yërem xéet wé tax ma desal fi alquran ñu koy jàng alquran nang fi xéewal du fi jug fekk alquran nang fi yalla du halak ya alquran joju nak nit ak jinne yépp buñ dajé won di dimbalante mënuñu andi lu mel ni ci fasaha ci balaqa ci usloob ci solo lu faddu te bu ñewé mel nam ko waxé kenn mënu ko la tel ñako doon jema top ndor ndoor kasab yag na la ko wax ku top lor alquran mu gis mu gis sof lo fasaa fasaa bu ko doon jeen top ndor da ngay top fasahati kon nak la misli walau kana ba'dhum li ba'din fahiran alquran ji mel ni nag farañ fan gu def na ko ci ci tëkku ci ay dëhal ñeen di rek ñeddi ko di wax wax yu ñak fayda nan so bëggee ñi gëm la na yàlla defaloon sa morom yonentu ya defal ñu ko te seen morom yonantu yi la ma leen defaloon ba ma ko defee seen nga dañoo weddi ma alag leen te ngeen bëgguma ngeen alku ngeen nekk fi naan ko xaral ñu ay sewnde muy ball ay ndox ndax ñi mën luñ mën a arrosé suñ tool yi xamal tool bu yaatu ci loolu mooy lan loo xam ne xéeféer yi sax xam nañ ko nga balal ci ay ndox su fekkee yow yaa yàlla ji tawal nga wàccee ci asamaan si mu dal ci suñ kaw comme ni ñu ko tëkkoo aw sama kama sa am alayna kisafan wax yu ñàkk fayda yooyu wala nga xam néeg boo xam ne wurus lay doon lu muy jariñ wala nga yéeg ci asamaan duñ la gëm sa lu nga di téere téere baa ngi nii yonent bi yéeg na dem na ci asamaan taxul ngeen gëm ko téere bi ñëw na taxul ngeen gëm ko yonent bi ne yàlla na ko waxal ne man mbindeef rek laa moo xam dañ maa yónni ngeen toog fi naan su ngeen bëggee ñu gëm la lu taa yàlla yónnee malaaka su ma yónnee woon malaaka ma la leen xalak ji su fi ay malaaka nekkoon ma yónni malaaka comme nit ngeen ne nit laa yónni kon yéen da a dof rek seen waxi dof waaye nag ku yàlla sànq kenn mënu laa gindi te yéen maa leen sànq ngeen nekk fi naan ndax boo ëllëgee buñ soppeekoo nekk ay yax danañ dekki nangam ak nangam da ngeen dee da ngeen xam da ngeen dekkeem déet yàlla dana dekkil seen yax yi dugal leen safara yéen yàllaay wax yonantu ne ko qul law antum doonte woon naka yéen tamlikuuna da ngeen moom xasaa'ina rahmati rabbi ndàmbi yërmande sama borom te mooy bu ngeen xamoon wërsëg woo xam ne dafa ne gàññ idan boobal tamit la am saktum da ngeen ngëb ko xasiyatal infaaqi ngi ragal ñàkk ndax yee nit ñu nay ngeen wa kaana nekk na al insaanu xéeféer xaturan di ko nay xéeféer yàlla ko bindee ak nay su ko defee wala qad aataynaa walaay joxoon nañ Moussa Moussa tisaa ayatin juróom-ñeenti kawteef bayinaatin yu leer naññi fas al laajal bani israila bani israil is jaahum bam leen dikkalee fa qaala wax na lawoo ñeel ko firawnu firawnu laajal banu israil ba ma ne yonent yàlla Moussa ki ñoom firawna ne indi ka man la azunnu ko danaa njort la yaa Moussa yow Moussa masxuuran nga nekk di kuñ jabar masuran nga nek di kuñ hor masuran nga dikke xam-xam bo xame da nga njabar nit ñi way li duhut hut qala musa ne ko laqad alimta wallahi xam nga yow fir'auna ne ma anzala wàccee hut haawulaay juróom ñeenti kaawteef yii ci man illa rabbus samawati lul borom juróom ñaari asaman wal ardi borom juróom ñaari suuf basaira mbir mu muy nek di ay lay yo xamne ne leer nañ la kel mënu ko weddi wa inni naka man la azunnu ko danaa njort la yow firawna yaa firawn yow firawna masbuuran nga nekk di kuñ xëñ yiw rek nga masbuuran nga nekk di kuñ rë kuñ rëbbu masbuuran nga nekk di ko xal ko rek fa loolu daal laa gis ci yow faaraada namu na maanaam firawna an yastafizahum mu mu buddi leen mooy mu buddi Muusa ak ñam ànd ak menal ardi ci suufu Misra waaye ba mu koy bëgg rek fa axraq naa ko fa axira naa ko lañ ko lañ ko lañ ko labal wa man maawo ak ña ma àndoon ak moom jami ma man ña àndoon moom jaman mbir mboole seen ñu labal leen ñoom ñëpp ñu xal ku ca baxru xalsoom wa qul naa ñuy wax min baadihi gannaaw dee ak firawna ñi wax li bani israil ñeel banu israil googu mu doon mot leen def ay jaam ne uskunoo na ngeen dëkkee al arda suufu misra waaye fa isaa jaa bu dikkee waxdul axirati dëxal bu mujj ba te mooy yëpp bis bis ji naa danañu dikk bikum ci yéen danañ leen dikkee la fan mbir mu ngeen nekk dañu ñu boole yéen ñëpp ngeen dajee ci mennam penci ci benn place kenn du absente kon gis nga aayaat yooyu suñu borom mi ngi cay dëxëñ ne bokk na ci ayibi kéeféer nay su ma leen joxoon àdduna ak li ci biiram tamit ma tàllal sama loxo ci ñoom du tax ñu tàllal ko keroog la ñuy gën a mën a nay duñ joxe ndax dañuy fone lu ñu xam buñ ko joxee dootul ñëwati ndax joxe ak tabe ku wóolu yàllaa ko man mu wóolu ne loo joxe rek lu ko xëpp mu ngi ñëw ci sa kanam waaye ku wóoluwut yàlla foo ko fekk dafay nay te nay garab la gu sax ca digg safara ku nay ku ne japp nga ca banqaas ya du la bayyi do ko bayyi yak mom ba dig safara tabe garab la gu sax ca digg aljaana yonun toy wax banqaas yi law ci aduna ku tabe japp nga ca boko bayyi du la bayyi yak mom ba digal jana waye ko xamee ne boo xamoon xat lu ci biram timit la am saktum xasiyat al infaq wa kana al insanu qatura Yalla ne joxna Musa jurom ñenti kawteef juróom ñeenti kawteef ya ibnu abbas mu ne mooy xet wa ak loxom ba ak maanaam loxo bu weex booba ak pas-pas bi nekkoon ci làmmeñam yàlla fecc ko wax qudata min lisaani ak xar gi ko yàlla xaral baxru xalsoom ak maanaam labga ci ndox mu bari ma ñëwoon ci nitam ña ak njéeréel ya ak teeñ ya ak mbott ya ak deret ja te yile yëpp jàngoon nañ ko euh, yooyu ñu ne mooy juróom-ñeenti kaawteef yi waaye bi ko ko yàlla joxee tamit taxul ñoom ñi gëm ñi ñi gëm su ko defee tamit lii la ko yàlla defal loolu la Ibnu Abbas wax moo tax yàlla ne jox naa Moussa juróom-ñeenti kaawteef yonentoo ko ëpp moo gisa eh, Moussa kaawteefam yëpp juróom-ñeent la yonentu yàlla Muhammad alquran rek ëpp na ñetti junne yu mucjisa ndax alquran ñetti aay yu nekk rek moo gisatoo boppam la ndax yàlla dëkk na leen ci saar ñi bañ te saar wi te mënuñ koo andi ngir ak lottu te saar wi gën a gàtt ci alquran ñetti aaya la muy inna ataynaaka al kawsara kon Moussa kawteefam yëpp mooy tisa ayatin bayyinatin yonentu bi nag ay kawteefam boo ko doon calculer ay junne junne junne kaawteef la boo demee suñ mag ña wax nañ ko maam Alaaji Maali wax na ko ca xilaas maam Khalifa Nges wax na ko ca miraatu safa su ko defee bi nga ko joxee juróom-ñeenti kaawteef yi Moussa ne ko na wax Moussa ne ko lii yëpp nga indi daal njabar rek la bëgg a yóbbu xelu nit ñi waaye duhut benn kaawteef duhut benn miracle Musa ku deugar fit la li na am am doole mu ne ko yow dal kuñ xew kuñ rek nga ku rek nga yow mi weddi deug yi jakar jàkkaarloog mom kon jihad na ndax jihad yeb bi ci hepp doole moy kaddu deug go yobbu ci kanam bur bo xamne dafa jeng motax mu xam fitu ne ko laqad alimta ma anzala illa rabu samawati wal ardi basaira wa inni la azunnuka yaa firawnu masbuura fa la fit mën moom firawna nag am xittey buurloo Moussa génne ko dëkk ba waaye mujj na yàlla labal ko ca géej ga donn loo suusa niti Moussa ña yàlla nag tofal ca ne moom yàlla moom la tofal ne wa bil xaq ci dëgg ansalnaahu lañ wàccee alquran mu bàyyee ko ca lawhul mahfuus ba ci baytul isa wa bil xaq ci dëgg tamit nasala la wàccee muy wàcc ak ga fu mu waxee nasala yu nasilu tansilan mooy bàyyi ko ci baytul isa ñëw ci eh, adduna bi diiram ñaar fukki at ak ñett ci ni ko yàlla programme ansal naahu nag muy ansala yun silu insalam mooy bàyyee ko gim bàyyee ko ci lawul mahfuz ñëw ci baytul isa foofa daal bàyyee ko gam fa bàyyee ko te bàyyee ko wut ca bàyyee ko wut fa lu ca bokk génnut ca lu ca bokkut nekkut ca bàyyi ko gim bàyyi ko ci baytul isa ñëw fii ci suuf lu ca bokkut nekkut ca lu ca bokk génnut ko wa ma arsalnaaka yónni wu ñu la yow yonantu bi illaa mubashiran lu dul ngay aji bégle ci képp ku la gëm ci aljana wa nasiran ngay aji xuppi képp ku la wedd ci safara wa quraanan al quraan farañ fànce nañ ko faraqnaahu farañ sànce nañ ko li taqrawoo ngir nanga nga jàng ko ala naasi ci nit ñi ala mukk sin ci yéex ala mukk cin ala mukk sin ci muñandiku ala mukk sin ci ndànku wa nasal naahu wàccee nañ ko tansilan ak wàccee qul wax leen ne amino gëm leen bii ci alquran aw laa tuumin wala gëmu leen li des ñi nga xam ne uutoo jox ne al ilma xam-xam lu kitaab min qabli yi njëkk wàcce alquran ñoom de isaa yut laa ndeem jàngeef na alim ñoom alquran yaxiruna mbir moom dana root su jëlee mbir ma ñu woy sujjoot lil asqaani ñeel seen suqunu yi seen kaabaab yi la ñuy root sujjoot wa yaquluna ña ngay wax ne subhaana rabbina nañ seel ak suñ borom in kaana nekk na waxdu rabbina dëxalu suñ borom la mafulan di luñ def wa yaxiruna mbir moom dana ñu root li yabkuuna di jooy maanaam euh, lil asqaani ñeel seen suqunu yi la ñu rotal daanu ci suuf di sujjoot yabkuuna mbir moom danañu jooy wa yasidum dana dolli leen xusuwan ak ragal yàlla de. ñi xam dëgg buñ déggee alquran rek daanu ku mel ne ibnu Salaam yàlla ne wàccee naaj yónni naa la ngay bégal ku la topp ci aljana di xupp képp ku la weddi ci safara alquran wàccee nañ ko farañ fànce ko biral ko euh, muy teqale diggante dëgg ak fen su ko defee tamit wàccee goo xam ne guñ diiral la diiram ñaar fukki at ak ñett wala yatuunaka bi masalin illaa jinaaka bil xaqi wa axsana tafsira nga wàccee waaye buñ ko wàccee woon ndoor rek comme tawreet ak linjiil xam naa ñi ko séq ak nit ñu ñaw lañ mën nañ laa andil ay wax waaye nag luñ la andil ci laaj rek ma andil la tontu loolu la ko wàccee moo tax mu ne li naqarawo li taqarawo ala naasi ala mukkusin dégg nga de yàlla nag di leen ne gëm leen moo ngeen ñàkk gëm mu ñu mënta wàññi dara waaye ñi nga xam ne dañoo am nañ xam-xam ñu wàccee woon ci ñoom ay téere mel ni ahlu kitaab ñooña de buñ déggee alquran rek jommi nañ comme ni Zayd ibn Omar ibnu Nufayl ak Salmaanul Farisi yi ak Abi Tharin al Ghafari ak Abdullah ibnu Salaam ak ñu mel noona moo tax bu ñu déggee alquran rek jàng ñu root sujjóot màggal ko tudd sell ak yàlla booleeg tamit di ko toroxlul kon nag euh, dégg nga moo te loolu lu am solo la. yonentu bi dafa daan wax ne laa yaliju naara rajulun baka min xasyatillah du tàbbi safara mukk koo xam ne dafa jooy tu ronkañam ngir ragal yàlla kon kooku du dem du dem du dem safara mu ne tamit képp ku maanaam soow mënta delluwaat ci ab du dajee ci sama eh, jaam bi pënd ci yoonu yàlla ak sahar ci safara mukk xataa yaxuda laban fi dari ak tuub balaa mën a wér dafay borom da ca ñàkk dellu kom ni soow mu génn ci bata na mu ñàkk a delloo yàlla ne yoon ci kare mënta dajeeg safara saxaru safara ci benn ab jaam mënta nekk hadis boobu wala wala sama ala abdi xubaarun fi sabilillah wa duxaanu jahannama mënta ne tirmisi yu nasaay moom ñoo ko génnee kula doo laa doo rahmaana yonantu moo daan bakk yàlla léeg-léeg mu ne allahu léegi léeg mu ne arrahman xéeféer seen ñàkk xel ga abu jahlin ne yonoon toog ñuy tere ñiy ñaaral yàlla te moom mi ngi nii di ko ñaaral fu di wax allahu arrahman xabun ne kenn la ko am ñaari tur te ñaari tur yi dañoo bokk ci ya gën a siiw ci turam ya rek waaye moom li am ci ay tur lu bari la ñetti junne mat na ko junne bu njëkk ba malaaka yi rek ko xam junneem ñaareel ba yonantu yi ñoo ko xam junneem ñetteel ba yàlla nag séddale ko ki ñeenti téere boo jëlee tawreet am na ñetti téeméeri turu yàlla linjiil ñetti téeméeri turu yàlla sabuur ñetti téeméeri turu yàlla alquran mi am na téeméeri turu yàlla bu manqué benn kon yooyu la yàlla méngoo ci ay tur kon rahman mooy allahu allahu mooy rahman moo tax mu ne qul waxal ne uddoo na ngeen woo laa yàlla awa doo wala ngeen wooyee ko rahman rahman ay maata doxoon bu ngeen ko mën a wooyee fa law aji nekk la ñeel ko al asmaawu tur ya al xusnaa ya gën a rafet bi salaatika sa julli wala to xaafit bul suufee bihaa ca njàngama ci julli wa bu taxi nanga nga bay na saalika diggante loolu sabilan yoon mooy diggu doomu xul waxal ne alhamdu melo wu sax ta rafet lillaahi aji sax la ñeel yàlla lazi yàlla ma nga xamee lam yettaxis jàppul wala dan doom walam yàkkun nekkut la di ko ñeel sharikon jenn aji bokkaale fi mu ko ca nguuram nga walam yàkkun nekkut la di ko ñaal waliyun aji méngal ko mi na zulli ci toroxtaane kon xamul toroxut bañ koy dimbale wa na màggal daal takbiran ak màggal de foofu la saar wee am kon yàlla bari ay tur bula neexee nga ne ko rahmaan bula neexee nga ne ko rahim turam yooyu tamit yëpp rafet ndax yépp dafa xem dafa làmboo maanaa taqdis ak tanzim ak tamjid wala tajhar bi salaatika ibnu abbas mu ne yonantu njëlbeenu lislaam buñ daan julli dañ daan nekk ci xur yi di nëbbatu moom buy jàngal Alquran di wax ca kaw waneen lim yore du ko nëbbu féeféer yi nag di ko rëbbu di rëbbaale Alquran di rëbbaale yàlla mi ko wàccee yàlla nag ne ko suufee lal sa kàddu li ko moy da nga ñi lay dégg te xamuñ li ngay wax yonent bi mujj gi di ko suufeel nag ba mu gi ña ca gannaawam di julli sax duñ xam li muy wax yàlla nag ne ko jàppal kon ci digg bi bu mu ba xëpp bu mu suufee ba xëpp ndax xayrul umuri awsatuha la yonent bi waxoon mu mujj nag wàccee kàddoom ca noona moo tax sax mas na cee xattee Aboubacar ak Omar Aboubacar bu doon biral foo toll doo ko mën a dégg loo ko jege jege daanaka doo ko dégg Omar buy biral foo tollu ci dëkk bi dégg ko ñu kalaame leen ci yonent bi Omar ak Aboubacar yonent bi laaj Aboubacar lu tax yow booy biral doo ko xiral mu ne ko yàlla laay wax ak dégg na ma jëralul ma xàddee ko Omar yow bëgg a xàddeeku ndax yàlla yërëm ma ma mën a dàq ngémmentu sama sama ci man ndax boo gémmantoo noo gën a xàddeekoo sa nelaw ya daqu ak damaa bëgg tamit dàq saytaane ndax bu déggee sama kàddu gi rek daw yonentu bi ne Aboubacar xaw la yëkkati tuuti Omar xaw a wàccee tuuti ngeen dajee ci digg doomu te xayrul sa awsatuha kenn du yonentu bi moo mën a àtte ñaar ñi joxante loxo jox ko loxo mosta àtte kuy ñaan appel. kon yàlla moomu kenn la lam yattaxid waladan boo gisee yàlla xamul doom te jàpp doom ñoom dañoo wax ittaxasalaahu waladan yàlla dàq ko ne ma taxasalaahu min walad ma taxasalaahu min waladin ñu ne walada laaw yàlla jur na doom yàlla ne lam yëlit yëpp la dàq ndax boo amoon doom mooy lim am lépp la koy jagoo te kon ñi mu xam ñëpp torox waaye nag boo xamut boo xamut doom li nga xam ñëpp ñi nga xam ko moom moo tax yàlla lim xam lépp lim ñi mu xam ko moom ñi mu xam mooy jaamam yi su ko defee nag moo tax waaye bu amoon doom rek li mu xam mu jagleel ko doomam rek ñi mu toro moo tax kon ñi fi am doom tamit ñi leen seq nekk seen gannaaw rek bu yàggee ñu am problème ak ñoom ndax liñ xam suñ sañoon ñañ xam lañ koy lañ lañ koy jox muy seen doom ya su ko defee yàlla ne màggal ko yonentu yow wa kabirhu takbiran ah, su ko defee yàlla moomu ko màgg la kon nañ koy màggal di ko sant yonentu nee na yowmal qiyaam ña ñuy njëkk a woo ñu dugg aljanna ña doon sant yàlla awalu ma yu ila aljanna yowmal qiyaam alladina yaxmaduuna allaha fi sarraai wa darraai abdullahi ibnu omar moo jël moo génnee hadis bi yonentu bi ne alhamdulillah rasu sukuri maa chakara allah abdun laa yaxmaduhu amul kenn kuy bàkk yàlla dul ba sant nga ko jaabir ibnu abdallah ne afdalu du'a alhamdulillah moom la déggee ci yonent bi gën ci ñaan mooy sant yàlla wa afdalu zikri la ilaha illallah tirmisi yu moo génne hadis bi su ko defee yonentu wax naa tamit ci hadis boo xam ne sumratum nu jundub moo ko déggee ci yonentu yonentu bi ne ahabul ahabul kalaami ilallah arbaun laa ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah laa yadruka bi ayihinna badata bu la ki neex nga njëkkee bu la ki neex nga mujjee muslim moo génnee hadis bi